bisub iidul fitri bi kon war na noo sant suñu borom ndax bu ko neexoon kat dañuy digal daanak lu dëkkee koor te kon itam jullit bi engage te muy dëgg ci moom du ko sañ def kon ne bu nga xam ne dattalal nañu ko def ko weer rek nangul nu ko ba bii ñëw kon war na noo jiital ak cant ko war na muy sant suñu borom bu baax a baax a baax di sant nag mbokk yi ñu fi teew mbokki taalibe yi lool di seetlu ci bis bii teewaay yu nga xam ne musu fee teew teewaayu mbooloo mi gis nañ ko bu baax a baax mooy ne wuy si nañ sëñ Muntaxa ci lim ñëwoon ci dikk bi woote dëkk bi xam la ne kawlax gii kat day buntub sëñ Touba da koo bëgg a def buntub sañ tubaa ci Saalum gépp loolu itam day tàmbale waaye kon nit ñi itam feeñal nañ ko seen diggante moom kon nag noo ngi koy sant bu baax Mbàkke di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi di ko gën di jox ay xalaat di ko gën a àggale liggéeyam yu naar yu rëy yi mu liggéey ci yoon di ko liggéey fépp di ko lëggéeyal jullit yi di ko defal jullit yi mbokki taalibe yi jataay bi ni ma ko waxee seetlu nañ fi mbooloo mu nga xam ne daaw ñu fi ñëwee loolu nag lu am solo la mooy ni ma waxee rek kon xam ngeen déglu ngeen message Sëñ Muntaxa ba tax na ngeen jëm si fii fas yéene ànd ak ci julli gi waaye danan ci ràññee nag kilifa yi nga xam ne ñoo fi daan toog te yokk ko Alaaji Sëriñ naka jekk moo fi ne di ñëw waaye sëriñ bu tey jii alhamdulilah meeru dëkk bi ñëw na muy lu am solo du ko ci sant bu baax a baax mu xam ne ci dëkk bi la bokk moo taxit mu ñëw te daawu fi ñëw waaye xam na ne kon fii la këram nekk fii la ko waree mu ñëwee fi gouverneur da daan yónnee waaye ñëwal na boppam kon seetlu naa ne mboolem ñi nga xam ne dañ daan yónnee dañoo ñëwal seen bopp kon nekk loolu lu am solo la ñoo leen ci sant bu baax ci taxawaay di sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ne nekk nañ fii te yàlla dogal lii ci noonu kon nag sunu cant yàlla dañuy jiital ci lépp kon nag noo ngi gën a sant di ñaax taalibe yi nag xam ne na bis bii ni ma ko waxee woon rek bisu jaamu yàlla la bis yëpp bisi jaamu yàlla la waaye weer wi ñu génne moo ci raw kon nag nan fas yéenee waxtu wu ne ñuy fàttaliku loolu nekk ci jaamu yàlla googu xam ne ak jaamu yàlla moo nu fi sunu boroom danoo def pour nu di ko jaamu pour feeñal ko moom ci boppam ci jaamu yàlla googu ginnaaw bu feeñ adduna sëpp suñ borom da cee feeñal boppam kon nag bi mu nu defee nu gis loolu lépp gëm ko di ko jaamu kon nag nan xam ne jaamu googu mooy suñu mission lañuy jiital ca jaamu ga pour nu mën a continuer di ko def dañuy jiital ak ragal yàlla ak ragal yàlla day loo xam ne mooy sàmm jullit bi ndax yàlla nit ki jullit bi bu sàmmoon teeg suñu borom sàmmoon teeg ndigali suñu borom sàmmoon teeg tey suñu boroom lu ma def sàmm boromam sàmm moromam ndax ci loolu lay sàmmanteeg moroomam sàmmanteeg bakkanu boppam sàmmanteeg lépp lu nga xam ne sunu boroom bind na ko kon ragal yàlla mooy cosaan dan jiital ragal yàlla ci lépp lu ñuy def ndax nu gën a mën a jaamu sunu borom te itam ragal yàlla gi dañuy dimbale ni ma waxee léegi ba tax sunuy relation suñu digganteeg si bopp danañ ko sellal danañ ko jaaree cam fa mu war a jaar danañ ko jaarale ci jub képp ku nga xam ne ab jullit la te jiital ragal yàlla ci sa bopp dana la aar ci lépp lu nga xam ne sunu borom dana ko tere kon nag lam lay lay la dëgg de mooy di la xiir ci topp sunu borom kon nag li am solo ci jullit bi muy fàttaliku ne jaamu sunu borom la da ko war di jaamu ci ay ndigalam ci ay tereem loolu mooy ragal yàlla xelam di ci dem bu di ko jiital loolu mooy moo nuy sàmm mooy sàmm jullit bi digganteem ak boppam digganteem ak moroomam digganteem ak société bi digganteem ak environnement bi sax loolu koy sàmm kon nag loolu nañ xam ne mooy principe bi nga xam ne moom la mbooleem société musulmane yi war a jiital buñ ko jiitalee rek lépp dana jaar fu mu war a jaar te lenn du am tooñeel du am ndax suñu borom dana aaye tooñ jël yëf yi sa morom du am ndax suñu borom dana ko aaye dara lu nga xam ne suñu borom dana koy aaye dana tax jullit bi gën koo sàmm loola nag <coughs> ni ñu koy gën a defee rek ni ñu koy gën a suuxatee mooy nekk ci ndigali suñu borom moo nuy àggale ci martaba boobu kon nag yàlla na ci yàlla àggale. amiin yàlla na yàlla taxaw jullit yi. yàlla na yàlla boole xoli jullit yi. te xam lislaam loolu mooy li nu boole li nu boole dafa am solo kon nag lu man di xew jullit bi war naa jiital moroomam bu jiital te bu jiitalee taqwallah boobu ma doon wax dana jiital moroom <laughs> dana xam ne li mu war a àndeek moroomam yëpp mooy baatub ragal yàlla sàmmoon teg sunu borom loolee dañu daal di xiirtal ci nu nekk benn xam ne li ñuy wut benn la kon nag jullit yëpp dañu war a nekk benn te loolu mooy yoon te bu jullit yi nekkee benn jullit fu mu nekk te ragal yàlla dana fa mën a nekk képp ku fa nekk keneen ndax loolu mooy lislaam kon nag mooy sàmm société bi na delluwaat ci suñ borom te xam ne mënunoo def ci société bi lenn luy jariñ dëgg-dëgg te delluwaatuñ ci suñu borom loolu mooy mën a tax nu àndandoo ab société mu doon rafet nit ñi ànduñu ginnaaw lislaam nu boole boole noo ñim ñim nu booleel ñëpp lislaam danoo danoo digal nu war a ànd ak ñoom ci yiw ci njekk ci teraanga loolu mooy lislaam kon nag sant danoo war a sant yàlla nun ñëpp bi nu yàlla defee ay jullit nu fas yéenee nag engagement boobu kenn ku ne jël sa digganteeg sa borom muy nekkub jullit gëm sunu borom fas yéenee def lim nag lépp lu nga xam ne digal na la ko nga engagé ne da nga koy def fas yéene lépp lu nga xam ne sunu borom tere na ko nga bañ ne du ma ko def loole nan koy yeesal waxtu wu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nan xam ne sunu borom rek moo nu fi di moom rek lan war a jaamu moom it lañuy sukkandikoo ci lépp képp ku sukkandikoo ci leneen keneen ku dul sunu borom nga. kon nag yàlla na yàlla dimbale. ba nuy gën a nekk ci noonu mu ko bëggee ba nuy gën a nekk engagement boobu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla di ñu dimbalee ban man caa nekk waxtu wu nekk loolu rek moo am solo kon ne bokki jullit yi bokki taalibe yi donc leen di gën a sant di ñaan yàlla boole waat nu fi ci taw feexi boppam nangul nu suñ jaamu yàlla yii ba foofaate ci gëna gënee gën noo boole itam nu ànd xam ne ànd rek moo am solo ci am réew ci ab ci ab jullit ndax jullit bi yàlla da ko digal mu ànd bopp moroomam waaye ànd ak ñëpp ñu bokkal société kon nag yàlla na yàlla gën a boole yàlla na yàlla taxawal yàlla yàlla taxaw Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla defaat jàmm waxtu wu ne saa yu ñu jaaxlee loolu war na noo gën a sant yàlla te xam ne sunu boroom def na fi loo xam ne nii ci xoli nit ñi ndax saa yu nit ñi jaaxe rek delluwaat ci seeni borom ci ñaan nga bëgg jàmm te gis nañ ne yàlla waxtu wu ne mi ngi koy defal kon nag war nañoo gën a sant yàlla te itam xam ne ak ñaan da war a nekk ca sabab sa nga xam ne moom koy amee mooy sababi jàmm loolu mooy teggiini ñaan bu nuy ñaan suñu borom jàmm ci réew mi dañoo war a nekk ca loola di ko dox di ko waxe di ko def loolu mooy suñu teggiini ñaan digganteem ak suñu borom waaye fuñ masaa jaaxle buñ ñaanee suñu borom mu may nu ko naka jekk kon nag alhamdulilah ndax ñaanaat yàlla def ci réew mi jàmm yàlla def ci réew mi ànd yàlla def ci réew mi juboo yàlla def ci ñoom xolub lislaam buy tàggale dëgg ak fen loolu rek am solo kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah